feebar bii dugg suñu biir réew muy mbas bu gaaw fay jógee ba kenn ku nekk si ñun daal di mën a delluwaat say activité nu mu waree di leen fàttali nag yéen ngi sen émission eh, langal nabi ngene fas yene sen andak sen xarit waye tamit sen soppe seen eh, nabi taalibe Moukabaru langal na nak eh, boko boo ko émission la bo xamni ni képp ku yor baat bu neex di tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ya xam itam nga nek ci bépp ëttu këru di tidian layen murit khadir ñaten jappal ni dinañ la ci dalal la fi ci suñ plateau ni rek la ko fas yene defee sa su ne bu samedi jotté ma daal di dalal ben ndanan tay nak kima dalal da ndaw ñu di ko wax Papa Sow Zikrula jóge ba géejawaay bëgg li muy def mën ko gëm ko moo tax tey ma am sañ-sañ daal di koy dalal Papa gannaaw ba ma la dalalee ba noppi maa ngi lay nuyu. jaboo ci réew mi alayhi salaara bu jàlloo te may nu ma la njaboot ci réew mi Cheikh ndaa ma jàngal Cheikh Modou Fadil lu mu wax mu moogal moo raw ci réew mi Alaaji Falilu baayu mbeen ki mooy baayu Sëriñ Afiya bu ne mu amoo daldi am bu nee du am loolu du am baayu Cheikh Abdoul Karim Mbacké naru maama wa fay galas baayu mbeena baayu mbeen galas baayu mbeen Cheikh Ndama jàngal Cheikh Modou Fadel wax mu mokkal moo ci réew mi wax nañ ne njoolul wax nañ ne gàttul góor la gu sembal góor la gu moom daa balancé yàlla ko beese jikkoom du sensé ne góor a ndaw mi Alaaji Falilu magum Basiiro timal jama ñoo yaay doomi Bamba Alaaji Falilo galas baay beena yaay sunu baay yaakaar awa fee sunu wasila ñoo ngi borom ne mooy bay kareem naaru maam awa ñooñu lay siyaar bay kareem ñooñu lay siyaar baram ne ne naaru maam awa bay kareem falilo ñooñu lay siyaar mooy waaw waaw waaw xewal yaa nge fu ne xewal wona fu wona aduna këreema muri doona foofe kem samaan yaa jajila la yàlla sa son Moussa la tubeel Serigne mu fa baatinam jox Moustapha muy wasilatom te fab zahiram jox gaaye noon ak borom Touba mu def sunna muy toolam bu muy xëy di wër di bay wa imaanu wal islaamu gumba borom Touba mu fak mu fab waaji bang ma ndum mu kaala rafet ji di dalam yu dul xar ba dem Tuuba andil nga nu Seex Bamba andil nga nu Seex Bamba ay kee maa xel dajool tabax nga feeñ yaqaydo judul ma befecto ba anil nga ni mbir yoo xam ne semal na mbëre waye nde tublo nga ay mbër te soxtakuloon Touba ataayaak kafe Touba ba woon xamuñu ko woon Dakara ak lañ daa baxal door a xëy dem nga jox ñi ay murid yu ñuy dawal di sellal di xëy di baye ba dem Touba alarbaat di bee lañ daa demal doomi soxna yow nga jox ni murid yuy daw di sellal ba dem Touba Touba Touba Touba Touba Touba Daaru Salaam adduna ji yaa muy am yërmande taw ndekon yàlla fu nas royada mooy Sëriñ Tuuba Abubakar Siddiq dëggal ko yaa ko ama danga dëggal ba fare ña filtoon mbirum Abu Xafsil Faaruq dinem nga yaa ko ba tubloo nga ay kàngama te jaase bu ñeekul tuba aboo sibteyil muxtaari jàmbaar ga lañ la maye ndeyow rek a fi dem géej ba xëy del dem tuba waya hajaban seex bamba jooy naa ko jooy xol waya ahmadun fardun xadimun sëriñ tuba siribtul wa doy naak lee mu def naa ko sawatal moo far wootu ismulaay li doy na waa Tuuba su lekk baat mi naan Sëriñ Bamba lañ di woo mu far wootu bismillah ci barke ba rëb Tuuba Tuuba Tuuba Tuba, moy deug bu bari leer tuba, Touba Touba deug bu bari leer li yeug ci amna solo amna solo lol sax fi ma tok xamna ni sama yaram bi mi ngi daw sax bilaay bilaay li nga yëkkati solo lol. bu ko defé nak ñu eh, daal tambali wat si si laaji continuer pap kan moy sa royuwaay si Karsi, garci pap kan mo lo poussé ba nga tax dugg si Karsi garci ni ba tok nga ne man kat dama wara def ni diw lu mi def waaw loolu bëgg na nga indi ci ay léral waaw mam sama royuwaay moom daanaka ñi may roy sax bari na moom waaw ñi may roy naka bari na lool lool lool comme sona xadi naka sama commencement sikar moom sama tambali ma roy na ko fi roy na fi sang mam basiru roy naa fi Pafay roy naa fi Badou ak ñeneen ak ñeneen daal ay sikarkat yu bëree bëree bëri yoo xam ne nii roy naa leen waaw mais ki ma ci gën a poussé moom wax naa la ko sant mooy Papa Diouf waaw moom ma ci gën a poussé moo gën a tax may waaw ma ma gën ma dugg ci waaw bu fekkee nag comme ni nga comme ni nga ko question ni ma ko laajee comme ki ki may bëgg a daal xam nga mel ni moom wala yooyu noonu waa bëri na moom boo xoolee gars yi bëri fii nii bëgg naa mel ñoom wala sax ma leen waaw bëgg naa lu ko raw muy njóogo waaw sikarket bi sama bàyyi nekk ci kaw yëpp waaw ba ci ay abakara ay laay gode petit ñoom ñëpp waaw bëgg naa bàyyi mel ni ñoom parce que sëñ Fallou Mbacke waaw ba ci Ibrahima Khalilullah zikrullah Ibou Diop ay abo zikrullah yooyu yëpp bëgg naa xam mel ni ñoom sëñ Fallou ndax ay góor yàlla lañ te mel ni ñoom tamit yombul parce que sëñ Fallou Mbacke loolu moom waaw maa ngi koy dagaan bu baax a baax a baax a baax waaw wala ñu am sax lu faw lu kawé suñu yontu daal wax loolu moom bëgg nañ ko ci wax inshallah suñu borom mën nako ko te dina ko def dé yoon bi nga nek rek waccio ci ben yoon di nga am lu kawé sa njot pap légui dañuy daal di dem sa digënté ak ñi lay produire pap ci ban label de production la né gis nañ itam nga def ben album 4 titres pap album bi eh, nan nga ko doon liggéey waaw comme ni nga xamne ñoo ñoo nekkoon ci production rek lool waaye maa ngi koy wax sax sama commencement wax muy maam ndaw ak aana mi nga xam ne maam daanaka lépp lu ñuy dugg dañuy jël seen ñaq ak seen lépp dugal ko ci waaw parce que sëñ Fallou nekk taalibe sëriñ Fallou boo xam ne nag da koo bëgg muy dëgg ci moom waaw di ko ñaanal nag moom waaw mënumaa sax wax di ko ñaanal barke sëñ Fallou Mbacke lépp lu mu bëgg rek yàlla ko fa fekk waaw muy xéwal ak jàmm lépp lu mu mënti doon waaw mu dund ba fekkee njëriñ yi lépp sama yaay aana tamit bëgg Cheikh Ibrahima Fall loolu di ko ñaanal moom tamit ah lepp lu mu bëgg rek ndax ñom dañ ci japp bu baaxa baax ah ay zal bom las ñom dañ ci japp bu baax ak baax ma ci am di mii joriñ baay aw ma fayam mom barki sëñ Fall mom ak waali aw ma seen fay maam duñ tok ben yoon studio dañuy jabanté ay abib Ousseyn ñom ñëpp barki sëñ Fall ñimay andal sax jarul ma leen di lim ay Momadou Dem mi ay Modou nga xamne ñom dañuy sonu Bas mbay Ousmane gaa yëpp ay xaarim cuun ak Lamine ñoom ñëpp barke sëñ Fall nga nga xam ne buñ buñ buñ dee def ay album dañ ciy sonn répétition yi dañuy yeew ay fajar di dem ay répété weeru koor gi yëpp daanaka chaque jour dañ naan yeewu sept heures du matin di dem ñaay ba di fa répété di def ay vidéo di ko partagé waat mu loo xam ne nii lu ma lu ma marqué la daal te aw ma seen fay defal ma leen dara barke sëñ Fallou Mbacké waaw ni koo xam ne nag defaloo ko dara mu am yëg-yëgu di ànd ak yow lépp looy dugg mu dugg ceeg yow kon kooku amoon fayam moo tax ñoom ñëpp ma leen si ma leen di ñaanal daal suñu borom yokk leen parce que sëñ Fallou ba ñu waaw ak Aline Badara mi nga xam ne tamit waaw jëriñ Aline Badara waaw moom moom day Baye Fall moom di góor yàlla da ciy jàpp bu baax a baax a baax yëkkati di ñaqam ak lépp di ko ci def ñun nday ami ma ko amit bigé bi moom tamit waaw gars yi daal moom waa golf daal ak laas moom dañ maa bëgg parce que sëñ Fallou Mbacke sama koñ moom fa ma nekk gaa yi moom dañ ma bëgg loolu waaw buñ ma bëggee yàlla rek tax ak yeneen beeg sëriñ bi waaw ndax du suñu baax du suñu dara du suñu kàttan du suñu mën-mën waaw dañoo bëgg rek te yàlla tax waaw di leen ñaanal nag ñoom waaw lépp luñ bëgg rek mu fekk leen waaw comme album bi moom metti woon na lool ma dëggeen Demba bañ koy génnee ngañ ma dëggeen moom nekku fi waaw dafa tukki woon nag mais moom daal yëkkati na ci xéwalam yu bëree bari dugal ko ci taabal ko ci parce que sëñ Fall moom tamit awma fayam waaw album bi lépp lu ji war lu ci nekk ak CD yeeg lépp génne xaalisam moom am di mooy gars yi ma rek ñoom lépp lu may dugal rek ñoom ñoo ciy dugal seen loxo dugal ci seen xéewal ak seen ñàkk xam nga jàpp ci loolu nag parce que sëñ Fall ba métti diñ ci waroon yëg sax yëguñu ko ndax ki lay wax ni moom ndax concert dama doon def benn concert taxaw ba si kër ba pare ñu ne na ngeen waajal am na benn affaire bu ñuy def man sax bañ koy wax yëguma ko ci lool noonu la xëy rek gaa yóbbu ma studio man dugalal rek laa ci am ma ñëw taxaw dugal bu doon loo xam ne nag lu ma lu ma rafetlu la daal ko ñooñu aw ma seen fay ma diggante Demba di ko ñaanal moom ak ñoom Baye Tafa yëpp yal na leen yàlla fay seen xol waaw di nuyu sama yaay bu baax di ko ñaanal mu yàgg fii sama waa diwaan ñëpp daal waaw sama yaay yeeg ñëpp daal ak say faana. jërëjëf jërëjëf papa jërëjëf kàddu yi rafet na macha allah léegi dañuy laal tuuti actualité ndax gis nañu mbas bi. ba mu duggisee ba léegi koor bu ñu génn moo ne woon seen programme te ku xam weeru koor ne weeru jàngkat yi la te gis nañ ni amul benn yëngu-yëngu bu si am papa loolu nan nga koy dundee en tant que si zikarkat waaw ñu koy dundee moom daanaka métti na lool sax barki sëñ Fallou Mbacké ndax Baye Fall moom ku xam ni moom ci activité rek la ñuy demul cant sax moom mooy doon mën nañoo dof ndax ñoo bëgg cant gi lool lool lool sax barki sëñ Fallou waaw dafa mu doon lu métti loo xam ne nag waaw ndogal gu ñëw la kenn mënu ci dara xëy na après suñ borom li ñu dencal moo ëpp waaw ndax moom nee moom nattu jullit day yokk ay maqaama wala muy suppi ñaawteef bi sub xiyaama kon suñu borom am na lu ñuy waajalal daal loo xam ne ni amaana bu ñëwoon sax mooy dàq dina neex ba ñu fàtte sax mbas mi te at bi mën na doon sax at boo xam ne nii mooy dàq mooy dàq ci mboolem at yi ndeem nag am na lu ci dal nag moo xam ne nii suñu borom ndax suñu borom bu la bëggee teg na wala mu bëgg la baaxee dara faa mu teg la benn natt xool noo koy seere mais fii yooyu loolu yaa ngi koy gëm ni suñu borom moo ko teg bu jàllee rek après xéewal day daal di ñëw kon daal yàlla nañu dëddu daal waaw dem te natu bii nii yàlla na doon natu boo xam ne daa ale xéwal yu bëree bëri bari daal bari mboolem réew yëpp naat waaw barke sëñ Fallou Mbacke mu doon lu metti nag waaw waaw nga xam ne bu nga génnee album sax gaa yi ciy jàpp ñii di barkeeloo ko yooyu noonu wala nga def son kon xam nga ni loolu noonu métti na bu buñ sañoon daal day jeex waaw waaw kon comme que ñaan rek lañ fa nañ ñaan rek mu jeex ak jàmm ba ku nekk di delluwaat sa yite waaw di ñaan nag ñi nga xam ne ñoom la mbas bi daal yàlla na leen teggeeku ñi nga xam ne tamit am nañ ci ay mbokk yu gaañ yàlla na leen suñu boroom jéggal waaw te nekkul feebar boo xam ne feebaru gàcce na maam suñ borom moo ko dogaloon bind ay jaam nit ñi ci mbas boobu la ñuy wàccee kon loolu noonu boo xam gàcce la quoi waaw di ñaanal jibi mi nga xam ne moo ñu dëddu tamit yàggul dara Baye Fall bi bu ko ñaanal moom fa jëm yàlla ko gënal fii mu jóge waaw doo doon góor yàlla nag barki sëñ Fallou Mbacke doon Baye Fall di ko ñaanal ay Sam Fall mooy ñi ma defoon ci son bi ay Sam Fall Papa Diouf ak Fallou Faye Basirou Faye Baye Babacar Diouf Khadim Mourou ñoom ñëpp la ñaanal daal fañ jëm Moustapha ñëpp yàlla yërëm leen waaw te jégal leen seen i baakaar amin amin amin yaara bi di ñaan nag suñu boroom daal di nangu bépp ñaan boo fi jot a yëkkati rek papa euh, daanaka yegg si nañ nag si suñu njeexitalu émission waaw maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, te di rafetlu sa teewaay fii nii euh, di la ñaanal yàlla nag yaa xam loo bëgg yàlla na la ko suñu boroom defaral gën a wéral baat bi waaw bu ko defee dama lay bàyyi nga tàggatoo. waaw ah, di la gërëm yow bu baax Babacar waaw ndax yow moom daanaka yow yaa ñu yar loolu depuis golf la du tey di bu baax ins sa mag waaw di la kontaanee bu baax ci lii nga xam ne nii moom nga def ndax bu la neexoon nga dem defal ko ñeneen mais dañ ñoo woo ñu ci déggante taay ba tey ndax yàgg nañ ko jàpp muy échec xëy na tey la ko yàlla dogal di la ñaanal yow tamit waaw lépp loo bëgg rek yàlla na la ko suñu borom defal waaw dem bañ lay dégg tamit fépp dem ba am seetale boobu suñu borom mën na ko yàgg sama juróom ji nga àndal waaw Moustapha di ko ñaanal bu baax moom tamit waaw yéen tam xewal yi ñëw lépp ñëw daal parce que sëñ Fallou Mbacke da ngeen àttan lépp waaw xanaa nag ñu tëj rek waaw di nuyu suñu yaay rek yaay Fatou Bintou moom mi nga xam mooy suñu ndey daara moom dañoo am lu dul moom parce que sëñ Fallou di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaw moom di ko ñaanal suñu wasila tamit Baye Abdoul Karim Mbacke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal njabootam gi yëpp sëñ Baara Mbacke sama xarit soxna waalo waaw Baye Galas si nii di Baye Galas gànnaar ak ñoom ñëpp samay xarit lañ waaye di la ñaanal ñu yàgg fi lool di ak wér di bëggee nag sama gars yi may àndal yëpp yëpp yëpp ñoo nga xam ne ñoom lay ànd ak suba ngoon di leen nuyu bu baax su ma limee rek damay jumte bu ma limee ñi naa bàyyi ñi waaw di leen nuyu bu baax a baax a baax di ñaanal sama yaay nag mu yàgg fi lool ba dund ba fekkee lépp ak sama magu yaay ak sama ñëpp daal waaw xanaa bu ko defee la ñu tëj waaw samal sàmmal yaral sàmmal yaral sàmmal yaral samfaal yaral mal yaral sàmmal sàmmal ñibbe ñibbe naa aljana demee yawmal xiyaab ramu nu fa xisaab bu fa ruus ba di fa seeb ngir ñaaqu ca ak yërmande bina te bunu yëg metti tuddee malaaka yay mbugal ku dee bu ñu nu gis te képp ku dee ramu ko ngir sa yërmande yow la nu yaakaar abada Seex Karim ngir yaa nu tàggaleeg bi daa na nu mbooleem ya nu daa may tàmbale ci am ni Mustafa turandoo am ni Mustafa ba mu demee mag ñëpp ne fa te xam ne day dem Daaru Salaam yarale yërmande yërëmal sa jaam ñee fal be yal jullit yëpp am jaam fu ñu jëm am jaam fu ñu dem amit jaam ñu dëkk ci jaam te sax ci jaam amina yal ko yàlla dem yërël ma ne yërël waaw waaw ñibbi xaadir laayeen ak tijaan bi ñaseen be yàlla yàlla be murit saadix ye bay faal ye yal na ñépp am jaam ak salaam jamala no yete wa samfal baye valbe rabbana koy moy te be ge aljana loole mu bëgg li jomb na loo xam ne li nag jomb na ab dofa koy bëgg ndax xamoon yërmande yërmande yàlla karim baay abdul karim baay faal be yërmande yërmande yërmande yërmande waa dawlo yee buur bi jéggal leen buur bi leen buur bi leen ca aljana yërmande yërmande yërmande buur bi leen jërëjëf jërëjëf am na solo am na solo kontaan nañ bu baax Baye Fall euh, mbokk internet yi nag tey lii lañ leen indiloon Papa Sow Zikroulah tey moom laa dalaloon gis nañu waxtaan yi am solo yuñ jot a sekk ak moom waaye itamit euh, zikar su neex bi fi jot a yëkkati nii rek laa ko fas yéene defee saa su ne di leen jox dig daje beneen yoon sam beneen numéro ak beneen invité d'ici là portez-vous bien et restez sur les programmes euh, de la TMP Event jaa ngeen